Instagram la ñu nekk te ñëpp ak ñuy seetaan. Mm-hmm. dëgg la. man Waly Balago Seck. Mm-hmm. man maa wax. la. grand pape maa ngi lay balu ak ni mu gën a fooree. ndeysaan dëgg la. grand pape man dinaa la seet si. Mm-hmm. waaju ma ko nag du ma ànd ak euh, du ma ci ànd ak kenn maa ñëw seet la sama bopp du ma la wax bés. man la <laughs> bu fekkee dëgg rek neex yàlla boo duggee kër papa ji mm. uh-huh. xol boo ci ubbi mm-hmm. bu sañoon jurwaal yi dëgg la waaw papa ji bu sañoon am doom ndeysaan ndeysaan dëgg la loolu for waali kër bu ne am na fa am na fa am na am na fa am na fa soppe loolu moom yàlla suñu borom moo ko def kenn mënu ci dara mu Instagram la ñu nekk te ak ñuy seetaan. Mm-hmm. dëgg la. man Wally Balago Seck. Mm-hmm. man maa wax. grand pape maa ngi lay baalu ak ni mu gën a fooree. ndeysaan grand pape man dinaa la seet si. Mm-hmm. waaju ma ko nag du ma ànd duma euh, du ma ci ànd ak kenn maa ñëw seet la bopp du la wax bés. man la ñëw seet la ñëw bu fekkee dëgg neex yàlla boo duggee kër papa ji xol boo ci ubbi mm-hmm. bu sañoon jurwaali dëgg la waaw papa ji bu sañoon am doom ndeysaan ndeysaan dëgg la loolu for waali kër bu ne am na fa am na fa am na fa am na fa am na fa soppe loolu moom yàlla suñu borom moo ko def kenn mënu ci dara waaw Instagram lañu nekk que ñëpp ak ñuy seetaan. Mm-hmm. dëgg la. man Wally Ballago Seck. Mm-hmm. man maa wax. la. grand pape maa ngi lay baalu ak ni mu gën a fooree. ndeysaan dëgg la. grand pape man dinaa la seet si. Mm-hmm. waaju ma ko nag du ma ànd ak euh, du ma ci ànd ak kenn maa ñëw seet la sama bopp du ma la wax man rek ñëw seet la ñëw <laughs> <laughs> bu fekkee dëgg neex yàlla boo duggee kër papa ji. Mm-hmm. Uh-huh. xol xol boo ci ubbi. Mm-hmm. bu sañoon jurwaali. dëgg la. waaw papa ji bu sañoon am doom. ndeysaan ndeysaan dëgg la loolu. for kër bu ne am na fa am na fa am na fa am na fa am na fa stocké. loolu moom yàlla suñu borom moo def kenn mënu ci dara. mu neex Instagram la ñu nekk te ñëpp a ñuy seetaan. Mm. dëgg la. man Wally Balago Seck. Mm-hmm. man maa wax. dëgg la. grand pape maa ngi lay baalu ak ni mu gën a fooree. ndeysaan dëgg la. grand pape man dinaa la seet si. Mm-hmm. waaju ma ko nag du ma ànd ak euh, du ci ànd ak kenn maa ñëw seet la sama bopp du la wax bés. non man rek nga jàll ñëw ñëw non man rek da ngay fekkee bu fekkee dugg neex yàlla boo duggee kër papa mm. xol boo ci ubbi mm-hmm. bu sañoon jurwaali dëgg la waaw papa ji bu sañoon am doom ndeysaan ndeysaan dëgg la loolu for waali kër bu ne am na am na fa am na am na fa am na fa soppe loolu moom yàlla suñu borom moo ko def kenn mënu ci dara. mu neex loolu la ak mu naqari